un candidat dañ koy mën nañ ko tambalé ak mm. ki nga xam ci modi eh, Théophile Mbeng mo mm. eh, nek and liggéey suñu réew mm. après deuxième bi mo nek eh, Thierno Alassane Sall mo nek parti Sénégal Sénégal kessé après on a Ousmane Kan, Hervé Natangue moo nekk troisième position quatrième position on a Moustapha Mbacké Dien, union des groupes cinquième bi ñi ngi am Birima Mangara kiiraay ak euh, naataange après Mouhamadou lamin Gueye moo nekk sixième position xàll yoon septième bi moo nekk El Hadji Ibrahima Mbow Union Citoyen bunt bi Souleymane Astou Diagne moo nekk euh, huitième jubbanti Sénégal euh, ki nga xam ne moo di Abdou Karim Sall moo nekk neuvième position ànd si kóolite ngir ànd si kóolite moo nekk après dixième bi Mamadou Racine Sy Alsar euh, onzième bi ñi ngi am euh, Amadou Ba euh, Nafoore Sénégal douzième bi ñi ngi am Cheikh Issa Sall Union nationale treizième ñi ngi am ki nga xam se moo di Famara Ibrahima Cissé bokk Sàmm Sa Gafaga keneen ki ci topp mooy Amadou lii moo yor bopp waa parti Wareef ki ci topp mooy Daouda Ndiaye nekk parti Action Basirou Ba union natal kaw eh, ki nga xam se ne moo di eh, Mamadou Madani Kane moo nekk eh, dix-septième position dundu leen ki nga xam se ne moo di Maguette seen mm. xam nga ko moo nekkoon ancien directeur bu kuddu mm. di nekk maire bu Malicounda moo nekk dix-huitième place bi mm. moo nekk la marche ki nga xam se moo di Tayrou Sarr moo nekk dix-neuvième position mooy les nationalistes ki nga xam si moo di euh, Souleymane Ndiaye moo nekk Manko liggéeyal Sénégal ki nga xamante ne nii moo di Abdoulaye Niane moo nekk vingt-et-unième place bi donc dekkal teranga ki nga xam si moo di Issa Dieye moo nekk vingt-deuxième place euh, ànd dooleel liggéeykat yi ki nga xam se moo di euh, Mamadou Salif Sow moo nekk ensemble pour le Sénégal ki nga xam ne moo di Abdoulaye Sylla mooy ànd beesal Sénégal moom moo nekk 24e place bi ki nga xam se ne ni moo di euh, Amadou Touba ñaan moo nekk vingt e place bi euh, moo di Garab ADS ki nga xam ne Mamadou Amidou Diallo moo nekk vingt e place gox yu bees moo du Fall moo nekk 27e place sàmm suñu réew ki nga xam Adama Faye moo nekk 26e 28e place bi mooy defar Sagor. gox ki nga xam si moo di sen euh, Sène moo 29e place euh, bokk fédération ki nga xam si moo wad 30e place euh, alliance jëf jël moo nekk ki nga xam seen ousmane sonko moo nekk 31e place parti pastef euh, abdou Mbake. ndaw Monek 32e place Alliance Nationale qui nga xamanteni modi euh, Mustafa Diop moy maire 33e place qui euh, nga modi parti Farlou, Alassane Douay 34e place And Soukali Production qui nga modi qui modi Biram Fay one monek 35e place secteur privé Amadou Ba Nek 36e place Jam ak njëriñ ki nga xam sen modi moo di Barthélémy jazz 37e place Sam sa El Hadji Mansour C Jamil mo nek 38e 38e place parti Bestu qui ki nga xam ne eh, Macky 39e place takk wàllu eh, Cheikh Amadou Bamba Sow 40e place bi grand rassemblement ki nga xam sen Tafsir Thioye moo 40 quarante et place soppi Sénégal ñii ñooy euh, liste des quarante une candidat mm. yi nga xam se ñoo bok ci élection législative anticipée yu 17 novembre 2024 euh, yi alors mi non exactement lool moy li nga xam la liste euh, des 41 euh, candidats wala kon 41 liste ñu venons daal di war mëna a compétir jëmale si li nga xam ne moo di élection yi ak li nga xam di exactement alors ñi daal di ñëw itam si nga xam ne moo di ba xibaar yi mbokk

Une nation nak mo dal di plongé euh, si ay famille yu une si ay conditions yu précaires mo dal di limité lool de dem ak dikk moo waral nag euh, ji euh, peut-être quelques fois dans les localités comme Balou situé à 115 km de Baquel. l'isolement causé par les dégâts matériels aggrave davantage la situation depuis l'ouverture des bureaux c'est 8 heures bu dal di

entre autres euh, de points yo xamni ni itam euh, soulevé nañ exactement moral force si waanu ko Bakel euh, vote bi ou non? alors aussi non la daal di mel si tout en espérant que ni li nga xamné que nous di si tout inshallah avec aussi la sortie de la Sénat

Ousmane Sonko euh, tey euh, le pourquoi mu teel a yow amal son devoir civique concrètement oui c'est une fois, nous, leen di nuyu di téléspectateurs yi 5TV